Sénégal salam waa wa yéen a ngi seen télévision Yegle TV ci seen émission nañ ci wax Tay seen émission nañ ci wax ki ñu invité invité bu invité la. Mm. invité boo xamante Sénégal ñëpp ko xam ci wàllu sport. invité boo xamante ne boo tuddee turam képp kuy def sport da ngay enthousiaste invité bi mooy Abdoulaye Diaw Abdoulaye Diaw salam Khady Fall euh, maaleykum salaam di am mbégte di ànd ak yow ci événement bu mag bi parce que euh, li lay yëkkati. nga ñew ba ci kër gi dag ma doylo té lool dafa neex parce que bare nga fo mënon dem nga ni ci ki la jëm ci loolu di sag ci man ba taxna euh suma jappone dana bayyi lima japp yop ndax choix bi nga def ci man ndok yalla ba nga ñëwee fekk ma feex tok di la nekk am ci di waxtaan ak euh, yow ma ngi nan tuti sax man dal temps sa temps émission bi dama ko xeeb parce que bu doon 2 heures de temps sax ñu tok waxtaan ko quoi mais di di di rafetlu euh, vraiment choix bi nga def ci man di ci contane di yaakaar ni daañu am yeneen i émission yu nga xamni ni dinañ ci toggaat waxtaan ci Abdoulaye Diaw sa émission nañ ci wax horizon la si lepp lañ nar a waxtaan incha allah dinañ ñëwaat ci yeneen édition yu bees Abdoulaye Diaw euh, gis na gisoon nañ la RTS mhm. nga marqué fa sa empreinte bu baax a baax ñu jek jek gisatuñ la fa mhm. lan moo waral loolu noonu gis nga yàgg ma fàttali benn kàddu bu yu Ndour yëkkati woon ci man parce que Youssou Ndour euh, RFM bi mi ngi bi muy door Sport FM la woon dooreewul ak man Ndeye Dom Diouf moo jëkk nekk directrice su euh, euh, Sport FM et quand Youssou a appris que j'étais libre mu ñëw ñu waxtaan am rendez-vous mu ni ma doorewuma ci yow laaj c'est parce que defoon naa ni mënuma la jële RTS parce que pour mom ni ma gisee RTS waruma fa man jëlé la ma fa jëlé nak man ci sam bop dama ci am mbetteel hein ah, nopi nak pendant très longtemps mais dafa dem ba mu mel nak man dama fa def erreur au face au public parce que dafa am ñu bari ñu mu bettoon sama jogu RTS face au public mu mel nak dama fa def erreur bu tax ñu sang ma sutura bayima ma dem en toute tranquillité fekk na booba temps dañ ba togn résilier contrat non non Khadi, je commence par rappeler que la coupe du monde 98 def naa français yi le Sénégal Je fa ma def ak coupe du monde 98 Jeux olympiques 2000 ma def ak la même télévision française Afrique du Sud a gagné les droits de la CAN 2002 Nous dañ defi ne français les sud-africain parce qu'ils se sont adressés aux Français pour confirmer le reportage euh, yi jëm ci pays francophone d'Afrique parce que gis nga bu télévision le droit pour euh, pour couvrir ou ou coupe du monde dafay jël un groupe reporter reporters. di de reporter en français ni en anglais ni en portugais ni en arabe man ci def en français la boc. wax naa la ñu def en France def naa que 2000 ci Jeux olympiques toujours en France bi à Sydney ma nga Sydney ñu en France di ko commenter di ko reporter alors sud africain yi ñëw bi ñëwé ma liggéey ba paré ñu war ñu fay nima nous sommes au mois de mars parce que 2002 atu CAN la ak coupe du monde ñu nima kan bi jeex na mais di nga dellu si à la coupe du monde 33 mois boy dellu ci da ngay wut beneen reporter bu la jappalé parce que liggéey bi day gën bëri à la CAN 16 équipes la benn match ngay def par jour à la coupe du monde 32 deux nga war def par jour té deux par jour ci benn reporter da fay metti ma ñëw def relation écrite et tout sama xaalis bi ma fay ñëw RTS jël ko résilier sama contrat ma euh, bi may waaj a dem ma toog un jour secrétariat direction bi woo ma ni ma sa fax pour coupe du monde bi ñëw ndax xam nga fax bi pour lan la ci ngay defi visa jëli ci visa ci ambassade Sud Afrique bi nekk ci VDN bi jëli jëli ci billet avion bi ci agence su sud africaine bu euh, agence euh, bu transport yu sud africain alors biñ ma nee sa vaccin ñëw na pour la coupe du monde ma leen téye leen ma ko ba vendredi ba lundi c'est un vendredi après midi fekk ma jóge juma lundi ma ñëw di ko jël pour les formalités ñu ne ma DG nee na buñ la ko jox buggul ma dem le directeur général de la RTS buggul ma dem parce que su ma demee danaa xam ni fay nañ ma xaalisu kan ñoom ñoo moo tax mu bañ ma dem et pour bañ ma dem dafa résilier sama contrat ma dem di fay ñu fay ma ñaari weer ma ni waa ji ma fay da nga xaalis bi ma jox dafa bare mu ni ma il est stipulé qu'en cas de non renouvellement du contrat il sera payé une indemnité de congé c'est-à-dire gars yi dañu résilier sa contrat moo tax ñu fay la deux mois Youssou Ndour yëg ko ma kaay ñu ànd coupe du monde je t'invite parce que li nga daj ci football bis bu Sénégal di dem coupe du monde mérité nga dem ma ne ko non soxlawul parce que su ma demee du je me suis c'est comme ça que je me suis retrouvé à Sport FM l'ancêtre euh, de RFM noppi naa pendant longtemps ci di sangu soutoura pour kër gi parce que ma bëggu woon ñu xam ni xaalis bi ma fay la sang ma sàng mais mu dem nag ba mu niru ci mbedd mi supputation yi léeg en toute cuite mu sañ ma ko demandé ci une émission en direct j'étais obligé de voir lan la sinon dafa amee la ko man maa fa def faute ñu ni bon comme def na fi c'est un professionnel qui a tout le temps donné satisfaction nañ ko bàyyi mu dem en douceur bañ ko topp ci dara j'étais obligé wax exactement le ma fa jëlee xaalis buñ ma fay ñu jël ko résilier sama contrat ba léegi xaw ma ñaata lañ ma fay lii moo ma jëlee RTS. Euh, euh, bi nga jógee RTS si la coupe du monde bi. Mhm. Euh, tey histoire de la coupe du monde. l'histoire de la coupe du monde. Abdoulaye Diaw lan mooy histoire coupe du monde. histoire coupe du monde c'est un français qui avait voulu fédérer le monde qui a réfléchi Tout du Jules Rimet mu devons ci réfléchir entre les années 26-28. Mais 1930 coupe du monde bi taxaw ñu la première édition de la coupe du monde en Uruguay Nous temps amul ay vols internationaux amagul avion yuy jóge dëkk ba de di tukki di équipe pour dem le bateau l'équipe est doon bateau Paris di ramasser ay bi muy Uruguay taxaw na sax Brésil jël équipe du Brésil continuer ak ñoom ci bateau bi am na forfait mais finalement il y a eu quand même 13 pays qui première coupe du monde bi Jules Rimet euh, def loolu ñu en Uruguay mu nekk une première édition bu door 1930 première tey 2018 28 édition parce que la coupe du monde se joue au rythme d'une édition tous les quatre ans tey 28 mu le plus grand jeu au monde seul le pèlerinage à la Mecque m'a attiré autant de monde sur place seul le pèlerinage à la Mecque toujours les deux grandes familles dans le monde ce sont les familles de la religion musulmane et du sport Moi, indi pèlerinage à la Mecque à coupe du monde de football Jules Rimet et pour la pour l'anecdote pour l'anecdote je suis allé à la coupe du monde en 98 coupe reporter Tu vois, vas bien ni ma lan moo manqué ci suñu coupe du monde vois, vas poser ma bonne question lan manqué ci suñu coupe du monde Malène, mais vous avez oublié de vous approprier votre invention ils n'ont pas compris ñu ne comment mais Malène, c'est un français qui a inventé la coupe du monde il est mort deux fois première mort naturelle Et bi téwul ba la coupe du monde bu le ba socle bi ñu ci bindu turop dañ ci Jules Rimet mais ku a gagné trois fois à kay mom bi Le Brésil gagné 58 62 ak 70 y ko légui la coupe du monde bi ñëw en cours en 74 en Allemagne et quand les Français ont gagné la coupe du monde en 98 quand ils m'ont dit qu'est-ce qui a manqué à notre coupe du monde Malène vous avez oublié de vous approprier votre invention et comment en donnant au Stade de France, le jour de la finale, le nom de Jules Rimet. Surtout que Brésil est carré pour la deuxième fois. li de moi, Brésil est carré pour la deuxième fois Sur Brésil gagné wul woon ñetti une coupe du monde bi kon ba léegi la coupe Jules Rimet donc pour l'avoir gagné trois fois la coupe Jules Rimet disparaît la coupe FIFA les alors le jour de la coupe du monde de la finale France Brésil France gagne 3-0 sur place il y a Jacques Chirac Sous inauguré avant la remise de la coupe le nom du stade de France Vous def ci stade Jules Rimet tout de suite est tableau d'affichage c'est pour pousser le monde entier à se poser la question de savoir qui Jules Rimet parce que au final France inaugurer le stade dès que Jules Rimet Jules Rimet et à vous de répliquer c'est le français qui a inventé la coupe du monde c'est un jeu mondial inventé par la France par un français si vous dites que c'est un français qui l'a inventé et désormais le nom du stade de France d'un c'est comme face au monde que vous dites au monde entier, c'est nous qui avons inventé la Coupe du Monde. Malgré le monde manquait, c'est une Coupe du Monde, sinon votre victoire aurait été totale. Vous avez gagné la Coupe du Monde et vous avez réhabilité et, vous avez réussi à faire entrer au Panthéon et à dans la postérité celui qui a inventé la Coupe du Monde, Jules Rimet. Je dis, je ne désespère pas de voir un jour son nom aller au Stade de France, parce que le Stade de France euh, Si vous avez la Coupe du Monde, Bobo. Oui. 1930, bataille coupe du monde nous ngi koy bëgg comme ni nga waxé pèlerinage la légui 1930 mmh. ba coupe du monde mu ngi jëlaa ñoo xolu aduna yëpp. Mmh. ban instant la sénégalais bokk ci coupe du monde. bon daan le bokk ay Le Maroc éliminé nañ fi en 70 Angola éliminé nañ fi ay les années 80 suñu première coupe du monde vraiment ñu ngi en 2002 parce que xam nga tax li tax euh, même bi ñuy en 2002 qualification yi sénégalais yi toppatoo wuñ ko parce que ñu bare dañ doon gis ni coupe du monde n'est pas pour nous pour nous. Oh, coupe du monde pour ñële la C'est pas pour nous Wow. comme les Grecs ku war def brevet vraiment kuy def agrégation de la intéressé <laughs> soo waree def brevet kuy def licence avec agrégation mhm. de la intéressé comme bien que foofu nga bëgg yegg si mais de faire ci yow pour le moment de la intéressé mhm. donc coupe du monde intéressé ñu au tout début parce que dañ doon wax c'est toujours pour les grands et nous nous voyons petits..! on ne s'était pas fixé des limites mais bon.. t'en vraiment non la 2022 toll 2002 suñu poule cinq la ñu woon ci ordre de performance on était 4e sur 5 suñu xel nekul qualifié parce qu'on avait l'Égypte qui na déjà coupe du monde l'Algérie qui déjà coupe du monde euh, Égypte Algérie Maroc qui déjà coupe du monde gagné nañu coupe d'Afrique ñun gagné la coupe du monde ñu gagné coupe d'Afrique ci ordre de performance ñu 4 quatrième Namibie di 5e à l'avant-dernière journée les Sénégalais se sont rendus compte que mën nañ qualifier légui biñu ñu nuliyee Maroc à Rabat le ko fa sax but bu arbitre bi bañ été accordé bu Ferdinand mu Dakar nous gañe ko but de El Diouf sur centre de Ferdinand Coly le dernier match nous war dem à Windhoek en Namibie on a joué à 10 n'empêche on a gagné 5-0 on était un tout petit peu protégé par la température qui était clémente parce que on a joué à 10 mais dafa seddoon j'ai souvent dit aux gars c'était la première fois équipe nationale Sénégal seul maillot manche longue parce que dafa seddoon sinon toujours manche courte lolu motax quand on a joué à 10 on n'a pas souffert parce que tàngul on gagne 5-0 suñu match jeex mais qualifié guñu won il a fallu ñu le résultat de Égypte Algérie Égypte Algérie la ñu résultat bu Égypte gagné moy genn bu ñu ñun ñoy genn ñu nul 1-1 lolu mo ñu qualifié à la Coupe du Monde balaa ñuy qualifié balaa ñuy oh. euh, Sénégal 1930 ba 2002 ci dogo commencé coupe du monde. Oh, oh. lan mo tax nga participer coupe du monde compétence wala nous dañ dañ dañu qualifier génération yu parce que booba temps aussi li tax ñun woon suñu football footballu pays intermédiaire parce que dans le monde si vous avez un tirage au sort au coupe du monde il am a assiette assiette bu C'est pour les très grands deuxième c'est pour les grands qui sont très grands grands troisième c'est pour les moyens quatrième c'est vraiment pour les faibles Quelqu'un de du leen wax da faible Si vous êtes voilà genre de division quatrième division sommes toujours dans le ou quatrième ou troisième parce que nous sommes pays intermédiaire. Nous sommes un pays en devenir. Le tirage, c'est tellement bien fait que nous avons dit que le bocal 1 ou 2. Parce que quelqu'un ne bolé, bolé bombardier et qui est une assiette. Hein? Ah, Dans bolé, qui est une assiette une assiette. Il y a une assiette qui est une Il une assiette qui est une Non.

Voilà l'exemple que je te donne. Papa, euh, Elas Diouf, papa, Djem n'a qualifié. Papa me joué dans l'équipe nationale. Papa me Djem qualifié. Tu dis, papa, Elas Diouf, mon papa, je suis allé plus loin que toi. Parce que Djem n'a qualifié. Qualifié, je m'a qualifié Sénégal. Donc, Djem n'a papa. Oh, peut-être peut pas Gana mais en tout cas, moi, tombé qui wara qualifié. Euh, T'es dit, nous avons un salaire sur nous, papa mais ñoom dafa mel ne que seen salaire nga doon parquet parce que ci seen salaire lañ ñu réaliser te ba pare nag ëpp ñu jàmm moom laa wax ni loolu mooy mérite devancier yi dañu ubbi yoon wi avec le peu qu'ils avaient te teewul ba tey ñu ñuy accompagner et on a besoin d'eux le père de El ne s'est pas qualifié à la Coupe du Monde c'est El Jouf qui s'est qualifié à la Coupe du Monde même s'il a eu deux ballons d'or après ba léegi du raw papaam waaw du raw papaam ci dara parce que papa kenn mënu ko raw alors anciens yi daan nañu jëmeentu dañu qualifié wul léegi nag xale yi ñoo tombé bii am chance su nekk ci la yi nga xam ñu war gagner coupe du monde Il y a des sénégalais qui jouent contre Messi Il y a des sénégalais qui jouent contre Cristiano Ronaldo à l'époque amul woon parce que pourtant, les gens ils ont pour le professionnalisme Ils ont à la maison un bon footballeur au Sénégal on lui trouvait du travail on lui trouvait très tôt même buy jàng dañ koy bàyyi loo jàng wutal ko liggéey et un bon salaire C'est l'avantage que nous avons. ñu jëkk ña am nañu mérite mais xale yi ñoo génne Sénégal vers le monde. ñu waxtaan tuuti ci 2002. waaw 2002 gis nañu suñu Lions yi demoon nañ ba quart de finale. Mm-hmm. Euh, gis amoon nañ envie Sénégal jël coupe du monde. Mm-hmm. lan moo tax jëluñu ko dañoo naagu woon wala ca leen topp wala lan moo tax jëluñu ko. bon euh, bëkki de maa ngi wax ci benn euh, émission ni leen xam nga ñun dañu door coup d'envoi gis nga dañu door coupe du monde bi rek. xam nga ñun mag ñu yar té dañu tok ci tu mak yi ñuy waxtaan euh, gisoo am na reporter français yu fi ñewon ci coup du monde 2002 dugg ci foyer yi di seetaan match yi ci biir kër yi gis na ben journaliste xam nga lu ko émouvoir wa bi mu duggé ci biir kër yi nit ñi seetaan ñu leen di filmer dafa dugg ci kër gu nga xamé ni ben jigen mo tok amé ben patu bu Sénégal amé ballon bi bu jëpparñi bu attaqué camp au Sénégal mu dëpp. gis nga ci suñu culture waaw gis nga ci suñu culture. ki tok ci kërëm di gëm na ni pat dal bi muy dëpp mi ngi bloqué adversaire ci patu dal bi muy dëpp ni adversaire suñu coupe du monde ma gis ñaari fait et le premier dès le match d'ouverture contre la France dès le match d'ouverture contre la France dama ci gis loo xam ne dama gëm ma ni oh lii warul woon am waay daf lay lu ñuy wax um xam nga mooy lan suñu but contre la France bi que Pape Bouba dugalee dafa daw ci poto corner ba simmi mayo lal ko ci suuf simmi mayo lal ci suuf xam nga lu ma lal ci suuf noonu drapeau drapeau kenn du ko lal ci suuf am na benn clip bu nga xam ne mu jël nañu censuré boobu image waa ji day lonko drapeau on drapeau bi di daw di soobu ci et comme drapeau kenn du ko diri ci suuf dañu mujj parti alors quand j'ai vu Pape faire ça j'ai dit ah non ça c'est mauvais signe parce que c'est mauvais signe parce que euh, bu fekkee ni war soirée, sore drapeau bi day taxaw du du tëdd soo waree sore drapeau bi day taxaw a Un match qui me reporté à la coupe du monde 98 Hollande Argentine Hollande Argentine maa ko reporté 98 capitaine u Argentine bi brassardam wadd capitaine brassard bi wadd ci reportage bi maa ngi naan ci suñu coutume c'est mauvais signe ci suñu coutume cela veut dire qu'il doit perdre moo tax brassard bi wadd mu jaaxal tubaab bi quand je l'ai dit à la fin du match effectivement l'Argentine avait perdu c'était quoi la Hollande ñu ne mais Abdoulaye qu'est-ce tu as fait dire ça ça fait partie de notre culture de notre voyage

loolu mooy jeex borom xew mi boroom xew mi borom ngénte li bu demee ba laaj sabar gi di ko tëgg mooy tas na <laughs> mooy tas na ñaari footballeur Sénégal yi ñoo jël sabar yi supporters yi doon tëgg uuf ko di ci tëgg ma ne jeex na. kon daal ñun ñoo amoon suñu <laughs> ñoo am suñu bopp. ñaari yoon ñu rëcc bu njëkk ba ci drapeau ba deuxième bi ci sabar gi sabar bi joueur yi di tëgg buñ ko laal dañu bàyyi ñeneen ñi di ko tëgg tant que ñeneen ñaa ngi koy tëgg daal ñu continuer mais buñ ko tëggee. léegi jeex na fa la ñu yem ci match boo xamee ni suñu match Turquie seen xel nekku ci parce que bu ñu éliminé turki ci Brésil lañ jëm ci Sénégalais yi xam nga lu ñu mën kii moo fi mën ki la fi gën a rëy kiñ ñi moo fi gën a rëy dinañ ko daan kiñ ñi moo fi mën dinañ ko raw gisoo ko su farce bu jeexee ñu ni deuxième bee mën ndaw buñ ci yokkoon 100 mètres rek mu raw alors que am na premier déjà ñu ni deuxième bee mën ndaw c'est parce que bëgguñu gis kuy raw gis kuy gis ku mbër mi fi mën daañu wuti mbër bu ko daan seen xel dafa nekkoon ci Brésil te gañaguñu Turquie loolu moo indi euh, Turquie gagné ñu 1-0 euh, ci prolongation ci match boo xam ne mënoon nañ ci génn ñu on a sax marqué contre la Turquie un but non accordé mais boobu temps fekk na ñu war fa yow. <laughs> oui doyen Abdoulaye Diop. waaw jàpp nga ni dañoo naagu woon. waaw suñu bopp moo tax. waaw loolu leer na euh, ñi nga xamante ne. ñooy waa 2002. Hmm. dañoo miinoon trop trop seeni ak ay kii supporters. waaw dañoo miinante woon ak ñoom xamante woon ak ñoom te ñi nga xamante ne ñoo nekk ci dëkk musique bi miinante wuñu ak ñoom. Hmm. waaw est que di nga nga ni loolu sur le plan psychologique. Hmm. dina tax équipe bi euh, xaw mën a perdre wala mu. xam nga xam nga fu loolu jógee li tax équipe 2002 bi jege woon trop public bi tax bu jege woon c'est parce que bi dem à la coupe du monde 2002 dañu final coupe d'Afrique ba pare. dañu final coupe d'Afrique, mars mai juin juillet la final coupe d'Afrique, afrique nous ñu final perdre que au tiro contre Cameroun public bi merewu ou ci mieux public bi daf remonte, parce que dafa dafa dommage que Sénégal raté opportunité nekk champion d'Afrique, parce que bi yoon ñore woon ñoroon na public bi ou leen euh, dañ leen ci yërëmoon moo tax coupe du monde bi dafa mel ne que équipe bi gars yi dañ ko jëli beaucoup ko coupe du monde bi ci dem coupe du monde on a fait ici un match d'adieu match de nga ni bon c'était pour aller à la coupe du monde contre Burkina Faso Burkina Faso gagné 4-2 à Dakar mais euh, nit ñi décroché ñu won ci public bi ci équipe bi parce que nous nañ ko dem à la coupe du monde def une assez bonne coupe du monde c'est-à-dire euh, équipe de 2002 dafa boyal yoon wi ba pare daf ko boyal alors que bii boyalagul bu bi euh, def en Afrique Gisso, biñu coupe du monde dañu finale 2002 Bi ñi ci coupe du monde l'année d'avant dañu perdre euh, en quart de finale de coupe d'Afrique mu nek équipe bu nga xamni ba tu euh ñi ci yaakar ba espoir la prenons le cas Sadio Mané mi nga xamni bo wut star ci équipe bi mom lay doon Bo doon ku nga peut-être que Sadio Mané lay doon mais Sadio Mané ci man ak ak ñu yag gis ba légui espoir la ci man Sadio Mané n'est pas encore un grand joueur c'est un bon joueur c'est un grand en devenir c'est un futur grand il faut qu'il fasse vite parce que dotul khalel trop bon âge bi mu am ci footballeur dotul khalel trop mais ba légui c'est un grand espoir alors l'olmo mo indi équipe du Sénégal dajalé ay joueurs yu nga xamé ni vraiment dañ ci am encore yaakaar dafa mel que Sénégalais yi gëmaguñ ni équipe bi mëna waxu jël tout de suite Coupe d'Afrique dafa niru équipe bu nga xam ni mu ngi màgg loolu moo indi ñuy dem Coupe du Monde deux mille euh, ci deux mille ñuy dem Coupe du Monde bon le public euh, est, est, euh, est attentiste il n'est pas enthousiaste attentiste bon c'est peut-être bon parce que dana tax du am pression ci ñoom et que Sénégal léeg-léeg foo leen yaakaarul foo leen yaakaarul fa la ñuy génn parce que li ci ëpp yëpp boo yaakaaree sa yaakaar tas mais boo nee eh, kii daal kontiwuma ci keroog jooju la ñuy def dara. Sénégal fi toll nii mu ngi ko war a sëkk ak nga xamante ne mooy Pologne. Mhm. Colombie ak Japon. Mhm. Euh, équipe bu mel ni Colombie. Mhm. dañoo bëgg football. dañoo respecté football. mën wax sax dañuy jaamu football. est-ce que yaakaar nga ni Sénégal dina ci génn. gis nga c'est bon loolu nga laajte ko parce que euh, dañu mbokk ak xam nga wax naa la tout à l'heure la tout tirage coupe du monde loolu mooy indi poul yi nekk am ñeenti équipe. Il y a très fort, il y a fort, il y a moyen et pas fort nous suñu poule ci quatre ci performance nous sommes quatrième sur quatre Colombie y na dem coupe du monde booba demuñ ci euh, Pologne a na dem coupe du monde Pologne Pologne tenait bien Pologne en 74 a mené en 74 def demi-finale coupe du monde a éliminé Brésil en 74 en Allemagne Pologne kon yàgg na ci yàgg na ci mën sañ fi am benn entraîneur bu du Kasper Zak ci équipe bu Pologne a jëloon quatrième en troisième en 74 Avec nga ca woon euh, Henri Kasper Zak Japon a na dem coupe du monde organiser na sax coupe du monde Nous sommes quatrième léegi boo doon xool poule bu ci nekk ku ci gën a ñun la mais ça nous va ñun loolu ça nous va

bokk l'équipe du Sénégal est composée de joueurs sénégalais qui vivent en Europe mais l'Europe est la capitale du football la piédestal du football dans le monde kon nous sommes en championnat min leen à la télévision ci Ligue des champions ak Europa League bi ñooñu comme adversaire par exemple régal tey jii bu Angleterre poule ñun nous bokk Angleterre poule day nekk derby ni comme ni France Sénégal n'est qu'un derby en 2002 parce que le Sénégal sénégalais est en France tey jii bu ñu bokkoon ak Angleterre day derby parce qu'il y a une dizaine de Sénégalais qui ont joué ñu ngi jouer en Angleterre soit Angleterre en coupe du monde Ils se connaissent entre eux ba tax na dafay nekk lu metti derby Sénégalais vivant en Angleterre avec l'équipe d'Angleterre. si Abdoulaye Diaw ba tey 2002. 2002 gis nañ sur le plan financier xaalis bi nga xamante coupe du monde waron nako ko Sénégal xamuñu fu mu jaar ba tey euh, loolu loo si wax. Euh, gis nga euh, démb rek dama jóge ci émission bu Augustin Senghor waxtaanee loolu Augustin Senghor waxtaanee na loolu parce que xam nga tey jii boo doon seet suñu histoire du football ñu nekk ci concert bu nga xamee ni il e organisé depuis 1947 depuis 1947 le football sénégalais est organisé ba 2018 ay dirigeants jaar fi ñii papa lañu fi ñun ñii mag lañu fi ñun. tey ji suñu ay rakkay diriger scandale bi gëna a ci football bi ba ñu jógee 2002 la am reuy xam nga ba tollu nak ba ñu jógee 2002 am na dirigeant yu dem prison leen yóbbu prison scandale financier wu coupe du monde kon xam nga reuy euh Augustin Senghor bi muy ñëw à la tête de la fédération waxna ko ko du woon sama candidat man Augustin du woon sama candidat Saer Seck mo don sama candidat lu parce que booba temps Diagne Ndiaye mooy président Saer Seck di vice président mais Diagne Ndiaye dafa nekkoon président té amulone jot football bi Saer Seck mo bot football bi taawu ko et comme Diagne day dem ma ne ki ko bootoon taawu ko naka téye continuer que jusqu'au moment où j'ai entendu Augustin Senghor dire euh, nous allons prendre les destinées du football mais on ne va pas normaliser avec ceux qui ont déjà à normaliser ma ni fi mu jëm ma Augustin bi xam fi mu jëm xam li ñuy nekk ci mom. si yeen bo si si yoon boobu noonu euh, ñi nga xamantene ñoy ñooy supporter e euh, gaynde ak ñi nga xamante ne ñooy supporter Allez Casa dañu dem Russie. Mhm. ñu gis ni ñoom suñu demee ci compétition yu mag yooyu da ngay gis Allez Casa taxawee nii def Allez Casa euh, euh, douzième gaynde taxawee nii def douzième gaynde est-ce que nga foog na loolu noonu sur le plan psychologique du jàpp joueur yi. waaw euh, problème boobu gars yi rek la nañ parce que amoon na fi sax problème mu Allez Casa gis nga même ci biir Allez Casa sax amoon na tuuti problème dafa demoon na ba xaw nekk léegi ñaari Allez Casa dama ci waxtaan ak benn Casamance. Euh, li ma teg ci loxoom dafa d'accord ak man ma ni leen le plus grand ambassadeur casamançais dans le football sénégalais c'est Jules Bocandé Casamance bi gën a defal Sénégal ci football bi Bocandé la Bocandé benn maillot club la musa am le maillot vert du Casa Sport benn bu ñëwee en équipe nationale daf koy ranger sol maillot équipe nationale ki gën a màgg ci football bi ci Casamance bu ñëwee du sol maillot Casa Sport maillot équipe nationale lay sol kon kay kooku bu ko solee ñëpp war na nekk ci gannaaw exemple bokkaande waa ji li ma d'accord naa gisuma ko moom daf ko doon gis gisu association ma ne fii su ngeen fi ñëwee dootu leen association dootu leen association da ngeen nekk ci euh, maanaam paysage bu nga xamee ni étendard bi Sénégal la ba tax na côté boobu defe naa rek le na euh, li ci gën a rafet na moo di coupe du monde bi ñuy jëm ci Russie dafay am village yu Sénégal xati xam nga boo déggee village yu Sénégal tey mooy lan tey jii boo agsi woon Russie jaaxle ñu naan la hôtel yi fees na hôtel yi fees na nga xiif bëgg lekk ceebu jën naan man fii fu may lekk ceebu jën ci Russie oto boo jël ni ko village yu Sénégal laa jëm ñu yóbbu la fa boo ñëwee da fu fa fekk daxin ak ceebu soos boo ñëwee da nga fekk ataaya ak li nga soxla kon tu es comme chez toi Moi, village boobu ñuy def au village boobu ñuy def ci Russie mu nekk village Sénégal ci coupe du monde bi dafa sécuriser tout le monde parce que euh, xam nga tumuraanke dafa gars mën nga yore xaalis ba ils gisoo hôtel boo fanaan tumuraanke dafa gaaw léeg-léeg du ci xaalis da ngay da ngay yore xaalis bu bare mais amuloo fort fanaan parce que amuloo foo tëdd loolu bu la daboon on nga dem ca village du Sénégal ba ca Russie jël ndes njaganaayoo sa daal du tey bu subaa boo yeewoo di nga song li dafa indi moo tax damay rafetlu euh, bi initiative xam nga lépp ngi rek ci jëm di di màgg après benn coupe du monde xamuñu ci luñ jëm ñu dem mais bii yoon soo yoonu màgg ba lay neex première fois nga ànd ak ku fa musa dem mais deuxième fois soxlaatoo kenn soxlaatoo kenn yaay demal sa bopp loolu la coupe du monde bel yoon bu njëkk bi dañ abal tànk bët

accident là, moom laay wax di équipe Brésil bi dafa panne entre la demi-finale et la finale ba jël 7-1 ci Allemagne en demi-finale 3-0 ci Hollande en match de classement du tey ba légui Brésil di bok ci favori Allemagne dana ci bok ndok yalla ba nga xamé ni Allemagne ñoo di tay ji championne du monde en en titre alors bo indé Brésil indi Allemagne Italie nekku fa parce que Italie bi yon ñomit dañu am surprise bu désagréable ci gannaaw dana am ay pays yu nga xamé ni mën nañ leen euh, tarxiisloo Argentine parce que Messi fu mu nekk déjà c'est un capital Argentine Argentine Brésil Argentine Allemagne ak ñi ci gannaaw ci ñi peloton bobu ci gannaaw France nga ca parce que amna ci équipe yi nga xamé dañuy gagner une fois gagner deux fois dal di gonfler. yek sen bop waaw yek sen bop wóolu seen bopp te ñooñu après boo leen bëggee gagné dafay daal di jafe am na ñuy màgg ci biir compétition bi mais am na xam ne bu ñuy ñëw dañuy indaale seen statut moo di Argentine moo di Brésil moo di Allemagne dans le désordre ñett ñooñu du ñàkk kenn ñëwaat ci en finale. coupe du monde muy rëy rëy yëpp def nañ ci 21 édition waaw coupe du yëpp. Mhm. Euh, Afrique benn yoon rek la ko organisé muy en 2010. Euh, ba Afrique. Euh, mën a organiser waat war na ñëwaat dana ñëwaat man gëm naa ne Afrique dana ko organiser waat par exemple Maroc ci bi ñu jëm en deux mille vingt six ki nekk na candidat parce que euh, Khady organiser coupe du monde dafa dis disaay bu nga xam ni foog nga nekk économiquement réew mu pare. gisoo ci cahier de charge bi dañuy seet ndax sa compagnie aviation mat na sa compagnie aviation. ndax am nga ligne aérienne yu mag avion yu doy ndax am nga stade yu doy ndax euh, am nga hôtel yu doy ndax liaison internationale bi euh, télévision yeeg rajo yi tax doy na dafa am ñu ko àttanul ñun par exemple tey jii àttanuñ Afrique du Sud àttan na ko ku dem Afrique du Sud di nga xam ni àttan nañ ko parce que Afrique du Sud dama ni euh, c'est un géant en Afrique Afrique du Sud c'est un géant en Afrique. Nigeria, si ñu organiser woon nañ ko mais à co-organisation bi mën na en Afrique du Nord parce que ci Algérie Égypte euh, Tunisie ak Maroc ñoom ñeent en nañ daje 32 la ñu ku nekk jël deux poules de 4, pays bu nekk jël 8 8 équipes ñooñu bu ñu dajee ko war a mën a euh, organiser euh, bon malheureusement candidature Maroc solitaire yi Maroc dafa bëgg organiser moom kenn te man gëm naa ni ñi muy xëccool ñoo ko gën a euh, ñoo ko ëpp doole ñi Maroc di xëccool organisation bi ñoo ko ëpp doole su fekkoon ni dañ koy def am na benn ah, jamono boo xam ne sax dañu dañu proposer ñuy changer continent parce que su fekkee ni dañuy seet ku ëpp doole rek ñu dénk ko ko duñ ko gaaw jox Afrique fekkee dañuy seet rek ku ëpp doole ku gën pare ah économiquement ñu jox ko duñ ko gaaw jox Afrique am na benn jamono ñu proposé ni waa tey ñu koy def euh, tour de rôle bu ñu demee Europe ñëw Afrique dem Amérique du Sud dem Amérique du Nord dem Asie peut-être noonu ce tour dana ñëw mais ni compétition la te euh, soo jëlee soo jëlee bicyclette bëgg ko dugal ci rawante oto dañ koy teel éliminer ñun ñooy bicyclette voilà moo euh,

boo ko dugalee si rawante oto du gaaw a génn comme Abdoulaye Diaw loolu wax waaw euh, am na ay jeunes leaders waaw yoo xamante ni ñoom nee nañ dañuy dugg si histoire coupe du monde dafa tombeek seen temps mhm. Sénégal dem coupe du monde ñoom ay étudiants lañ waaw douze mille étudiants lañ nee nañ waaw euh, ñooñu dañoo bëgg wax si coupe du monde def ay atelier Pologne Colombie ak yooyu noonu ban conseil nga leen mën a jox mais dama kontaan ci seen projet gis nga ñooñu nga tudd accompagné naa leen ci seen projet bi invité dans les Niarion, c'est une émission sportive à la radio. Euh, fait que atelier organisé à la maison de la presse dans la foulée Je ci euh, féliciter Mohamed Diouf mi nga c'est une des têtes pensantes ah ma daje ceeg ay xale yu dégourdi euh, ambitieux yo xamee ni euh, vous êtes des leaders en devenir ce sont des futurs grands leaders Je suis content de ce projet parce que xam nga la coupe du monde day mag. Nous en 1930 presque dans l'indifférence différences màgg ba en 2018 nous avons 2000 bi muy d'or, ils veulent être utiles à quelque chose On wane ni la coupe du monde fois, mokk ci couche population de bu mais c'est tellement vrai est-ce que la coupe du monde retarde retarder une guerre mmh. la guerre 39 45 mi ngi waroon en 1938 ñu arrêté ko parce que dafa une année coupe du monde ni ni c'est après la guerre que le que lay d'or. loolu indi d'ailleurs au rythme d'une édition tous les quatre ans loolu moo indi en am 30 34 38 il y a eu la guerre mondiale la deuxième guerre mondiale au rythme d'une édition tous les quatre ans amul 42 amul 46 50 la dellu parce que xam nga léeg-léeg guerre Mon na delloo réew fukki

té gëm naa ne li ñu def dana def tache d'huile ah, incha allah bu ci yalla yobbo benen yoon dana fekk ñu gën bare doole gën ci wane seen bopp parce que ñom ñoy le levain de la nation le levain de la nation modilan nous sommes en 2018 Sénégal ou 2022 à 2026 ñom xëy na ñoo yoré, yore xëy na ci ñooñu président de la république ak premier ministre su Boba ñu ne il y a 10 ans ñu gën ci structure bi pour être utile à quelque chose à la coupe du monde voilà et d'ailleurs, quand j'ai vu Macky Sall arriver au stade du obsèque de ce n'était pas le président de la République pauvre qui venait celui qui est venu aux obsèques de Bokandé.. c'est l'ancien fan de Bokandé..! parce que Macky Sall jamono ay guerre 86 il temps étudiant Il yooyu étudiant, étudiant est nekkoon université fan ñoom Bocandé ak ñoom euh, euh, euh, Mamadou Taw ak di ñëw au stade Macky Sall amoon na licence UASU année yoy de cette bimu bi ci obstacle Bokandé ñëwul en sa qualité de président de la République mais de fan de Bokandé qui vient aujourd'hui l'accompagner à sa dernière euh, à sa dernière demeure mu nek lu nga xamé ni horizon leadership yi dañu mus a dajeek moom fi ay génération parce que li ñu def quand même reuy de trop. Mm-hmm. kon li ñuy wax xalé bu loxoom setee. Mm-hmm. bok ak ay mag ay mag. Euh, loolu la waa Horizon Leadership def. loolu la Pape euh, Abdoulaye Diaw wax. Uh-huh. Euh, Abdoulaye Diaw émission bi doyaluñu doyaluñu si invitation bi. jërëjëf donc ñëwaat beneen yoon sa dernier mot. di leen di di di di encourager ñi nga xamee ni ñu ngi ci yoonu coupe du monde bi ñu ngi dem coupe du monde ce sont des ambassadeurs xam nga xat yi je te donne un exemple il vaut mieux se qualifier à la Coupe du Monde que gagner la Coupe d'Afrique. Afrique, on est 56 pays. 56 sont gagnés Coupe d'Afrique. 56 pays, ci langue 56 pays Coupe du Monde il y ci 211 pays. Parce que nous sommes 211 pays membres de la FIFA. FIFA on est 211 Coupe du Monde 32 rek

Abdou Diouf Abdoulaye Wade et Macky Sall le loolu a gisoo bi Sénégal gagné euh, euh, France à l'ouverture de la coupe du monde que France n'est championne du monde championne d'Europe championne des continents un meilleur buteur en Europe euh, Thierry Henry et David Trezeguet yëg naa en géographie dans le monde bis boobu am na Sénégal parce que dañu ñëw ci carte monde bi di seet fu Sénégal nekk léegi ñu ngi jëm xam Sénégal parce que les footballeurs sénégalais ñu ngi brie dans le monde kon ambassadeur lañ ñu ngi ñi di dem fa ñu jëm dana fa am ñu fa gën a sopp Sénégal ci seen jotaay ci seen taxawaay kon ambassadeur lañu dama dem ba màkk ñu may laaj El Hadj Diouf di ma laaj da xam nga El Hadj Diouf duggut dem naa Maroc jël taxi euh, àgg fa ma jëm war fay waa ji ni ma xam nga Moussa Ndaw ma ne ko waaw ma doo fay ndax xam Moussa Ndaw parce que fofu Moussa Ndaw ci Maroc ambassadeur la Allah Alaaji Diouf ba ci Màkka ambassadeur la fa tey dans le monde entier boo fa demee am na ñoo xam Sadio Mané la ñu gëna xam le président de la République kon ambassadeur lañu te am na ci ñu nga xam bu coupe du monde bi jéxé daañ fa joggé gëna bëgg sa réew kon bu ñu fàtte seen réew parce que ci kaw suufam lañu jutto té mom lañu taxawal ils sont ñom ñëpp en mission di leen féliciter ci fiñu yobbu Sénégal Euh, di leen demande taxawaay ba jekk yow nag dama lay gërëm yaa ak sa équipe parce que Sénégal mi mu bari expert ci coupe du monde bi mën nga ci dajeek ñu la ci waxtaanal te doo doyal nga ni waxtaan wi daal ci lay jëw laay jëw non seulement ñoo bokk profession bi mais doy na ma ci parce que dégg naa li mu ciy wax loolu neex na ma trop waaw loolu neex na li ma defal amul njëg amul njëg c'est tellement vrai que kenn du ko jaay. li ma defal fek sima sama keur ni man nga bëgg waxtanal ken du ko jaay motax motax amul ke te xam ko waji ji dana xam lu gëna metti ñu nek ko ah, ni bëgg dara te ñun la du jaay te te nga am njëg <laughs> am bëgg lo dañ leen di du jaay wala, day nek ci yow nit ñi di ko fa fek motax khadif Fall yak sa équipe bi nga andal dama leen di gërëm ci fi ngeen ma tek ba fek sima fi di leen gërëm di leen ñaanal télévision bi yaana mag ba ngeen dem ba su boobaa léegi bu coupe du monde jotee yene tak sen bagage dem teug ko fagn koy teug amiin inshallah jere jere sama mbokk téléspectateurs yi contane ngeen man tamit contane na di len présenter sen émission nañ ci wax ak suñu xarit euh, suñu collègue Abdoulaye Diaw ba benen yoon ci benen émission nañ ci wax ak yenen tem ak benen invité inshallah ciao.